يا يسعد الآوي إليه فيسعد اللهم صل على محمد سيد البشر وسافع الوسفاء في البشر ورثنا هدى عنه فأكرم بإرثه وورثنا هدى عنه فاكرم بإرثه فبنزله أفناس حياة وبسه فكم تاب من خلف به بعد خبزه لنا الناس درا سيرقه يوم بعثه ولكنه في النار mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu Euh, ñu ngi sant yàlla bu baax di julli ci Seydina Mouhamed sallallahu alayhi sallam euh, di nuyu mbokku téléspectateur u Thiénaba TV euh, nuyu tamit kilifa yi nga xam ne ñoo jàkkaarloo ak ñun jël nuyoo yooyu teg ko ci loxol sëriñ Jaayaan bi nga xam ne tey dëkkam la ñu toog mu jàllaleel ñu ko ci kilifa yi nekk ci réew mi yëpp jaar ci xalif général bu Thiénaba Baye sëriñ Assane sekk ñu koy ñaanal yàlla yàggal ko fi te wéral ko. ci barke Seydina Mouhamed sallallahu alayhi wa sallam ak kilifa yi nekk ci réew mi ak téléspectateurs yi internautes yi euh, ñu ngi fii ci jaayaan euh, tey nag ci cérémonie boo xam ni euh, cérémonie bu neex bu war a neex population bi ñu jàkkaar loolu la muy lan muy pose première pierre poste de santé fii ci jaayaan jaayaan nag wax ci moom ci wàllu histoire dëkk la boo xam ni dëkk bu bokk ci ñi am cosaan ci réew mi la ci histoire Euh, xam naa loolu euh, mag ñaa ngi toog xaj na dañ ci dellu si waaye li ñuy def rek mooy projet boo xam ni muy projet poste de santé boo xam ni euh, ñi ko seq ak waa jaayaan ñu ngi jóge ba Allemagne ñëw fii ñoom la ñu toogal ñoom ngeen seen waaye coordonnateur bi nga xam ne moo dox ci diggante ñoom ak population bi ak kilifa yi dëkk bi muy monsieur Sall moom moo toog moom laa leen di jox kàddu gi bu ko defee moom li ci war ci leeral ci euh, lal waxtaan moom dinañ ko defal wax ñu projet bi fan la jaar fan la jógee ak nan la def ba ñëw fii ci jaayaan ak nan lañ ko war a tërale euh, bu ko defee yéen ñi jàkkaarloo ñun tamit ngeen ñaan rek yàlla def ko mu sotti ak jàmm te ñu fekkee ko te tal ko ci barke Seydina Mouhamed salaa salaam kon ñu jox ko kàddu gi bu pare euh, monsieur le maire a ngi toog muy premier magistrat de la commune monsieur Talla Diagne ñu koy nuyu di ko jaajëfal kon moom dëkkam la ñu ñëw waaye commune am la ñu nekk Euh, ci njabootam la ñu jàkkaar loolu tamit euh, bu ko defee moom tamit dina ci am ay kàddu euh, ñi yore projet bi am ci ay kàddu waa dëkk bi bu ko defee rek mu nekk mbégte moo xam ne dañ koy partagé kon ñu jox monsieur Sall mu ubbil ñu kàddu yi. nuyoo bi moom buñ ko tegee ci loxo yi monsieur le maire mu jub moom muy premier citoyen de la ville mu yóbbaale ñëpp géew bu ko tegee ci loxo yi imaam mu jub moom it mën naa yóbbaale ñëpp géew kon foog naa ne buñ ñu ko yemalee foofu. mooy kenn ku nekk yëg nga ne fi nga toog fekk nañ dafa fa jox loo loxo nuyu la sargal la tatagal la dolli sant yàlla ci bis bu bii mu ñu xéwale mu am lu ñu nasoon yàlla dimbali ñu ñu li ñu ko xalaatee woon mu yombaleel nu ko noonu ba ñu dajee fii tey bëgg a def cérémonie bi nga xam ne mooy nekk lancement wu travaux xel daloon na démb waaye li yokk dal xel yi mooy ñaan yi nga xam ne kaamil bi nga xam ne wàccee nañ ko bi suba laytaayee ko li nga xam ne moom lañu war a waxtaanee ak moom lañu war a liggéey loolu doy na xel ñu ñaan yàlla yàlla na fekk moom moo jiitu ñu topp. monsieur le maire li fi li nga xam ne moom la population bi yëkkati fii tey ci kàddu yokk na leeral gan ne ñoom lii nga xam ne moom lañ leen bëgg a defal lu ñu yàggoon na bëgg la yow sa bopp fësal nga ñu ko ci waxtaan boo xam ne. ci seqoon nañu ko yàlla dogal ONG bii nga xam ne tey moo fi ñëw tudd Health fi Africa vasa fu Sénégal ak ki nga xam ne moo ko sosoon monsieur Bickel France mu ngi nii sama ginnaaw ànd ak délégation ñoo xam ne présenté nañ leen sànq mu nekk nit ñoo xam ne comme imam ni mu ko waxee sànq ñoom yëg nañu ne ñun ñëpp njabootu yàlla lañu sol nañu seen dàll tamit mel ni ñu ngi dox ci li yàlla waxoon ne sama njaboot gi kat ña ca gën mooy ñuy sonn ci seen morom ñu nekk ONG boo xam ne ñu ngi bëgg a yàgg Sénégal suñu fanweeri at teg na ñu liggéey fi ay école liggéey fi dispensaire liggéey fi ay poste de poste de santé taxawu jigéen ñi ci wàllu wàllu wu nekk tey nag li nga xam ne moo ñu fi indi ay la yeween mooy wàllu poste de santé bii nga xam ne waxtaane nañu ko ba kenn ku ci nekk la cay sa wàll nga def ko ñu fësal ci tamit taxawaayu monsieur le maire ndax njalbeenu projet bi dafa nekkoon poste de santé bi nga xam ne moo ne jaayeen wolof gi ñu ñëwoon pour def ko réhabilité maanaam 77 lañ ko tabaxoon xëy na tey ni poste sante war a mel ci jamono moom melul noonu ñu buggoon ñoŋal ko ba mu dellu si noonu bu ko defee mu gën a yéwén ci njaboot gi nga xam ne moom la moom la uuf moom la jaboote yàlla dogal bi ñu toogee di waxtaan ñu gis ne ñun kat fa ñu taxaw digganteem poste sante bu bees wax dëgg yàlla jéego yi fi des nekkul jéego yoo xam ne war na nekk lu metti waaye ci diggante baat ak tontu fi ñu ko waxee le monsieur le maire ne lépp loo xam ne warees na ko cee yokk pour ñu mën a def poste santé bu bees man monsieur le maire gàddu loolu moo indi jotaay tey bi ñu ne nañu taxaw def fii poste de santé bi imaam wax na ko ci tuuru njaboot gi yëpp sëñ Mori wax na ci tuuru borom dëkk ñoom ñëpp rafetlu nañu jéego yi nga xam ne ñetti at ba léegi ñu ngi koy dox ñu ngi fàttali sànq sax ne bi ñu fiy ñëw poste santé unifié école moo ñu fi indi woon waaye yàlla moom li mu nam rek loolu mooy am yëf bi glissé na ba egg si fii ñu am ci kontaante lool ci li nga xamee ne tomba na ci ñun en tant que ONG pour que ñëw ànd ak yéen monsieur maire euh, jéem a saafara loo xam ne euh, tawat la woon ci njaboot gi. mu nekk loo xam ne yéene woon nañu ko yaa ngi ñu wax ne 2008 ba léegi commune bu ngi daw ci ginnaaw lu noonu kon bu ñu ci yàlla tombalee ñun tam am nañ ci cant gu rëy a rëy li nga xam ne waroon na fi jóg ci kàddu yëpp wax dëgg yàlla yëkkati nañ ko bu ci jóg bu ci nekk rek mu gën a rafet moromam ba tax na ñu ni kàddu yi yëpp jib ne benn kàddu moo fi des muy sa kaddu yow monsieur le maire soo ko jotalee ba pare. ñu ànd dem ca cérémonie ba parce que tey dañuy def duñ ñu rek pose de première pierre waaye dañ koy boole mu nekk lancement wu travaux yi gis ngeen entrepreneur bi ñëw na wax nañ leen tamit suñu diggante ak moom ak qualité buñ ci am ñu ñaan yàlla yàlla mu defal ñu chantier boo xam ne lu ñu ci njortu woon ci baax ci ñoŋ ci rafet ci sell ci wóor yàlla defal ñu lu ko ëpp. su ko defee ñu bañ a guddal ñu jox kilifay jotaay bi monsieur le maire projet bi. yàlla dafa dogal bi ñu ñëwee fi ñun di waxtaan maa ngi wax sànq ne ci réhabilitation lañ doon dem réhabilitation bi ñu ngi ko tënkoon ci 72 millions. 71 906 pour gën a mu gën a pes 71 millions 906 mille 354 bi ñu ñëwee yàlla dogal médecin chef district ñu ngi sant moom it ci taxawaayam mu xatoon lool ndax jamono yi octobre ak seen yooyu ñu nekk mu am jigéen jum fi yónni madame madame madame Ndiaye xaar sàll mu ñëw moom it ndeysaan taxaw taxaw bu rafet. bi ñu ñëwee daf ñu ni ñun de ci wàllu district ba dañoo waxtaan ba fan yi ñu def benn concept ci poste de santé bu bees bu jël médecine maternité logement sage-femme logement ICP ak li ci ànd ci commodité ñu ngi ko tënkoon ci soixante quinze millions te gis naa ne yéen jege ngeen soixante douze. teewoon ñu waxtaan suñu biir seet nu ñuy fexe rek ba def jéego boobu des ndax soixante quinze yi mat ñu mun ko def poste santé bu bees. bi ñu waxtaanee loolu bay daaneel sëñ góora mi ñëwoon ci turu monsieur le maire yëkkati yëkkati téléphone woo ko ñëwaat toog nañu monsieur maire nan gàddu na loolu te gàddu woon na déjà ci biir la ñu tënkoon wàllu bi nga xam ne mooy wàllu njaboot gi gàddu woon na ko mu ne la cay tekku tamit la tegu ni man gàddu naa ko pour ñoom defi poste kon nag ñu ngi tënk ci soixante quinze millions ñu ngi ko teg tamit ci ki nga xam ne moom mooy kilifa ci wàllu médecine ci dëkk bi moom mooy médecin chef district ñoom ñoo def benn concept wax ne loolu yëpp bu dajee li war a daje pour mu nekk poste bu bees 75 millions la ñu def monsieur le maire gunge ñu ba ñu def effort boobu noonu ñu tënk léegi projet bi ci 75 millions bëgg ko liggéey tamit ci diiru juróomi juróomi ñaan yàlla ñëpp ñaanal ñu ba ñu mën ko def ci anam yooyu noonu. nuyoo bi maa ngi ciy jiital Serigne Diayane Serigne Ibrahima Gueye. di ci teg imaam El Hadji Ngora Sarr ak waa dëkk bi yëpp nuyoo boobu dama koy teg ci loxoom mu jottilul ñu ko sëriñ cana ba Baye Assane Seck ndax dëkk bii dëkk ma ndax cana ba fii la jóge sañ ci ba te loolu maamam la ci àndalan kon su ma nee Baye Assane Seck dëkk bi dëkk ma waris na koo gëm aussi monsieur Sall di la nuyu bu baax di la sant di la gërëm di nuyoo bi nga tegal ma ko ci loxol partenaires yi ndax li may wax ñoom dégguñu ko waaye fi kontante commencé ba fi mu yem moo dal nit nag bu amee loo xam dafa jóge ci dogal sunu boroom waaye néew na yàlla tàllal loxo nga tàllal loxo mu teg ci su ma see amit man gisuma ko il ma am fu muy jaar doomu dëkk bi di doom ci man di sët ci man moo gise ak yow ba seen relation am ba ngeen ñëw jaayaan bi ngeen di daje xamoo woon lu xew sag mbaax ak sag yéwén ak sag bëgg lu baax mu indi sa diggante ak moom ba relation am ba lii am tey kon moom itam il ñu sant ko gërëm ko ndax dañu wax ni bala ngaa laaj lu sa réew defal dangay wax lu la loo defal sa réew ñeneen ñi wax ni dëkk sàngam laa dëkk mëtta tiitaroo defar dëkk bi moo ko ëpp solo kon nag lii dafa mel ni moom dëkk la fi la dëkk waaye ñiy defar dëkk bi ànd na ci ak ñun Eh, lii nag day lu yàlla dogal waaye ban ko dalee lijjanti comme ni nga ko waxee yàgg na ca jamonoy Talla Seck lanu programmé woon benn partenaire defal ñu ko di plan de waaye ñu dem ba ca biir am lu ko gàllankoor la ko gàllankoor jërul wax ndax paase na ñu dem ba Talla Seck jóge fi yàlla di dimbali ba 2009 Abdou ñu ngi ñëw nekk PCR ñu dellu waxaat ko ban ni financement bi pare na waaye la ko gàllankooraat jërul wax parce que passé na waaye yàllaa ngi dogal la koy gàllankoor far ci loxo yi mu doon jaar far dëkk ci dëkk bi moo tax lii kenn mënu koo gàllankoor ndax nag programme saa bu ñëwee te yow fa nga dëkk. am loo fa mën a yóbbu su boobaa mën nga koo dëwee yóbbu ko ñoom it ñi fi nekk ni yéene woon nañu waaye lii la yàlla dogal tey kon tey su ma ñëwee tombe ak lii ci sama bilan la bokk bilan yi nag dina bari lool bilan yi dina bari lool ci atum mille 2024 ndax fii ñuy toll nii ñi ngi war a inaugurer ñetti euh, marché yoo xam ne ñaari tabax nañ ko ba pare beneen bi avant muy am 15 jours di leen ko def jaayaan gi du nag danoo faral jaayaan waaye lu yàlla dogal yàlla lu mu tudd mu am ci dëkk yëpp lañ ko programmé bu ma sañan commune trent 38 village ak 23 amo dañ koy tabax ba mu mel ni pale ndax dëkk bii ma dëkk li jaayaan li lu ma yéene moom la ma Thiénaba gi yéene moom la ma feneen yéene kon su ma sañan lépp ci commune Thiénaba luñ fi bëgg ci projet dañ koy am e, di sant nag moor bu baax aussi di ko gërëm ak Gora Diagne comme ni mu ko waxee bi ma góoree woo maa nga mais bi ma woo dama ko ne yàgg moori fu ngeen nekk jël leen seen responsabilité lu mu doon gàddu naa ko wax leen ko ci seen làmmiñ te loolu la laay accordé kon nag suñu demee maa ngi jàpp ni weer ñaari weer ñetti weer ngeen woo ma barki démb ni nan signé convention bi man lii est du ay nax ñu ñëw signé convention bi ñun ma bagage yi dem na kon loolu de deetu waxee kese ah Baye Ndiame est-ce wax dégg nga ko lii moom wolof nee na dañu fàng kenn du ko jeex moo tax ne yéegi waa jaan kenn mën leen a fay waaye gën góor góorgóorlu te jàppante ci seen biir ndax lu baax buñ la ko dee indil da nga koy fonk ñoom ñii nekk ci poste de sante bi mënuñoo dem sans yéen nit bu nekkee ci yow yàlla jox ko xam-xam mu dikk di la jàppale da nga koy jàppale yow itam jàppale gi mooy yaatal ko ubbil ko sa dënn bañ koo indil benn problème saa boo fa demee nga bàyyi ko sa bopp ndax kenn du dem ci docteur naa ko lii mooy faj lii moom ma dal lii moom may faj déedéet danga koy bàyyi sa bopp te moom itam bi mu fi ñëwee ba léegi wax dëgg yàlla sunu xel dal na ci moom ndax nit bu la dee faj boo ko nee jàkk dinga xam sa xel dina dal walla du dal ku lay faj te wóolu ko nag jàngoro ji day yokk waaye moom ñëpp wóolu na ko waaye li ko waral mooy jikkoom ak ngorom akub yaram ak i tegginam fo ci mag nekk am lu la dal te mënoo dem boo ko woo mu fekk si la ba ci man mii kon na fi ñu ngi lay sant bu baax aussi ñu ngi lay gërëm ak équipe bi nga àndal di la xamal ni la ma waxan cene ba ci partenaires yi loolu laay waxaat nit bu la defalee lu baax nga waran koo génn ci sa poos def ko te mënoo ko mu defal la ko foo jaar sant ko waaye bu nu sañan bu nu leen di sant fanu dëkk lañ leen di sante ndax buntu ubbi na boo xam ne ci beneen partenaire boo xam sama xarit la Euh, trois cent personnes yoo xam ni danoo war a jàngi Allemagne dossier yaa ngi tege képp ku ci am doom mu bëgg a jàngi Allemagne na ñëw ci man dina dem école baa ngi nii am waaye nan ma ko lépp a ngi fi am na fu muy jaar loolu nag ndimbalul sunu borom la tey jiit laa koy soog a wax ndax aw ma woon occasion te it nit ñi xaw ma fu nu toll waaye nag daa neexul ci baykat bu bay gerteem foom ndax somme bi dem na ci 4 millions 600 waaye 4 millions 600 yi sa lépp ci la bokk visa beeg paas bi ak école bi ngay loose fa ngay dëkk li ngay lekk ca la bokk 6 mois doo jënd lekk dëkk gi nag moom ak courant bi ak ndox mi dafa continuer ba sam njàng te boo pare da ngay liggéey loolu am na solo lool kon yéen xale yi toll ci jàng dem leen lijjanti jaay leen fas yi jaay saret yi jaay oto yi te paas dem kon daal li ma mën a wax mooy kontaan bu baax eh, eh, ñi ngi sant yàlla di gën a kontaanaat ci monsieur le maire di ngeen àndal parce que ñoom suñu xësee dem Europe daanaka maire yi la ñuy dalal maire yi la waxal en tout cas euh, 2011 bi ma jëkkee dem itali bi nu lijjantee benn eh, ambulance pour war koo andi Thiénaba mënuñoo xam fu ñuy jaar ba indi ko parce que PCR lañu Europe moom kenn du wax PCR PCR mënu fa dara xamuñu ko sax mais nag foofu la ñuy sant président Macky Sall bi mu ñëwee 2014 mu def yëpp ay maire ba fu nu neex dem fu nu demit jëmmi maire lan ñuy jox parce que boo demee Europe ni senegal di dawee ci ginnaaw député yi noonu la député yi dawee ci ginnaaw maire yi léeg-léeg nag wolof day wax ne ndox ndox yam na ndox soxmaat yam na ndox ma mu dëkkal loolu mooy mooy jikkoy Sénégal waaye suñu xësee génn fan ñu war a teg dañ ñu fay teg waaye lépp lu ñu war a lijjanti ñu ngi koy lijjanti ba bari na euh, euh, activité yoon doon def ay partenaire am nañ ci yaakaar ñëpp dafa jàppan ni bu régime bi daanoo lépp day bokk nërmeelu mais danoo xamul ni mair état la état la loolu moo taxan ma wax ni maire boo gis mu contre état fa mu jëm du sori mbaa sa sa ndab boo tegee ndabit du fees nit ku ko contre ba mu xam ko lu mu yor di ko joxe yow yaay mujj am bu la mënta bañ a jox day joxe ba mu des mu soog laa jox ndegam maire yi ñoom ñooy def noonu mais est-ce que état loolu moo tax may duma ma contre waa jaan na ko ñëpp dégg damaa bokk ci état man rallié wu ma fekk état état ma soxla woo ma ma ñëw di wax ak man moo tax wax ji na bu yeboonu gàttal ko du jëriñul dara incha allah bi fa nu dëgmal dañu fay àgg te kenn mënta dox ci diggante bi kon daal lii lii ma may occasion bi ma wax loolu. maa ngi ciy dellusiwaat di leen sant bu baax aussi di leen gërëm di ñaan yàlla daal sëñ jaayaan nga ñaanal leen bu baax yàlla dooli leen dimbali te dooli sutura yi njàmme yéen itam ñu ngi leen di sant parce que diggante Thiénaba ak jaayaan sori na te bàyyi ngeen fa xew-xew boo xam ni bu nu mettee mësul am ci suba teel lan ma woo wax ma ko ngeen bàyyi lépp ñëw ci man may itam boo gisee ma toogan mooy problème mu ndindi ndax kenn ku dégg na coowul ndindi chef du village ba chef du village ba ba su préfet woonu fan yële ñu bokk toog waxtaan ba déggoo na mag ña doon def ñu def ko ki war a topp topp ki war a jiitu jiitu moom lañ doon installé tey su préfet maa ko bàyyi wëlbati ko ne dem cene dem cene ba li nu seq lépp kenn ku ne lay sa cër dénk nañ la ko bàyyi ko ak yow lii moo doon wax ji sëñ Ndiaye daal gudd gàtt lii mooy wax ji njàmmel ñi ngi leen di sant bu baax aussi ñi ngi leen di gërëm di sant waa dëkk bi yëpp góor ak jigéen mag ak ndaw lii rek mooy àddina ñun ñëpp nañ joxante loxo nanu ànd nan jàppante lépp lu waay soxla na ko wax moroom ma bu ko manee def ko bu ko mënumu dem wuti ko lii moo di dëkkandoo mag ñi noonu lañ doon def kon ñun ñi fi nekk nan roy tànki mag ñi te bàyyi di teqantey tànk di wax leneen dara rafetu ci ñun ñëpp nan ànd bokk ndey bokk bay imaam daal lépp loo xam na leen ko ñaanal yàlla dimbali leen yokku leen jubale leen ak seen i kilifa parce que ñoom ñëw nañu tey di ay kilifa waaye dañoo bàyyi ak kilifa kilifa nag bu la yàlla jubaleek moom jubale ak ñi nga yilif jàmm rek nga yam maa ngi yamale foofu kàddu gi di leen sant bu baax di leen gërëm di jéggulu tardement bi nga xam ni moo aman sama diggante ak yéen tubaarkàlla jërë ngeen jëf merci. Uh, mbokk yi dellu jaajëfal leen kon ginnaaw kàddu yooyu ñi nga xam ne yëkkati nañ ko fi uh, ci diggante uh, ñi nga xam ne muy coordonnateur yëkkatil kàddu ñi nga xam ne ñooy partenaires yi jóge Allemagne ginnaaw monsieur le tamit kàddu yi mu ci teg dégg ngeen ko. Euh, mu nekk kàddu yoo xam ni kàddu yu am sololo waaye loolu yëpp nag ñu ngi ko def ci kanamu euh, kilifa yi nga xam ne ñoo nekk fii ci Jaayaan euh, Sëriñ Jaayaan mu ngi woon toog ci jataay bi chef village mu ngi woon toog ci jataay yi bi waaye ki nga xam ne tam mooy imam bi mu ngi toog ci jataay bi ak notable yi ñi nga xam ne tam ñoo jiite wàllu santé ci biir dëkk bi ñoom tam ñu ngi woon toog ci jataay bi xam naa fii ñu taxaw nii nag lañuy ñuy war a teg pose première pierre bi ci kanam tuuti incha allah mu nekk en même temps lancement travaux yi ngeen gis ni euh, chantier bi moom door na euh, fii nga xam ni macha allah mooy jaayaan euh, ñu war fee def poste de santé boo xam ni dégg ngeen ko am na ci valeur u soixante quinze war koo def lu mu gàtt gàtt ci juróomi weer jàpp juróom benn weer ñu war koo def rek war a livrer li nga xam ni moom mooy clé yi kon ci kanam ñu ñëw ànd ak ñi nga xam ne ñoo war a teg pose première pierre bi mu nekk déclenchement démarrage u travaux yi. instant boobu rek ngeen gis euh, ñu nekk ci pose euh, première pierre bi euh, monsieur le maire Talla Diagne mooy jaxasee ciment noonu di ko teg rek macha allah bu ko defee mooy pose première pierre bi fii ci poste de santé bi nga xam ni moom la ñu war a def kooku ngeen seen noonu mooy entrepreneur bi nga xam ne moom moo war a diriger travaux yi macha allah xam naa bu ñu paree passante ko rek wala ñu yëkkati voilà mu ngi noonu. voilà voilà vas-y voilà mu ngi noonu kon mu ngi noonu tegu xeer bi poste de santé euh, macha allah mu nekk lu am am solo voilà c'est bon c'est bon <laughs> c'est bon. Schau mal. Ja, du. Voilà, voilà. <laughs> Ah. Marcel, waa ji bi ko fi bàyyi. Ah. Sëñ bi bàyyi voilà mu ngi noonu mu ngi noonu kon euh, teg nañu xeer bi euh, macha allah fii ak cinq mois rek incha allah jàpp six euh, la ñu war a joxe li nga xam ne moom mooy moom mooy caabi yi. Mhm. juróom oh, <laughs> <laughs> xeer bi ba pare fatiha euh, ayatul kursi lixlaas falax ak na salaatul fatiha yàlla mi nga xam nii luñ commencé mu àgg moo ko àggale may na nu commencé yàlla na nu may nu àggale ci jàmm bi jaay seydina moom salaatu te dara bañ koo yàq allahu la ilaha illa yaa taxudu maa ngi lay dolli nga présenté wu. waaw man la Nafi Diop ICP poste de santé Yayane district sanitaire de Khombole. Euh, tey euh, ñëw nañu andil euh, outil bu bees. Mhm. muy pose première pierre poste de santé yow ban sentiment nga am. ah tout d'abord damay remercier partenaires yi. Mhm. parce que d'abord kii di Maram Kane ak monsieur Sall moom macha allah mention spéciale. Mhm. depuis partenaires yi ñëw fi avant may ñëw sama bien arrivé sama poste bi. dafa amoon projet bu ñu defoon pour réflexion yalla def nag en tout diggante bi ma fi ñëwee ñu ñëwaat fi nag bi ñu ñëwee dama proposé ñu pour réflexion poste bi léegi ñu ànd seeg ñoom. yàlla def ñu nekk ak ñoom di waxtaan ak ñoom di déggante ak ñoom pour avancement post bi ba yàlla sottil ko tey jii defuñu leen lu leen di leen remercier ko ak mbégte gi ñu àndal. weesu tamit sama médecin chef tamit dama ko fàtte ginnaaw docteur Matar Ndiaye moom it tamit delluwul benn yoon ginnaaw heure bu ma ko woowee ci activité yi lu ma ko ci mën a xamal rek ñëw na wuy suñu tey nag dafa am empêchement ndax dañoo nekkoon ci octobre rose yi tey mu fekk ko ci mais bëggoon na fekk pose première pierre bi waaw en tant que ICP euh, nekk jaayaan euh, macha allah yan jànkonteel nga yan problème nga fi jànkonteel loo xam ne peut-être di nga ci war a mën a yëkkati baat euh, kilifa yi dégg la waaw di sant waa yaayaan bu baax nag wax fa dëgg neex yàlla population bu neex a dëkkal lañ bi ma fi ñëwee moom wax fa dëgg neex yàlla gisuma lu ma fi naqari ubbil nañ ma seen bopp ñu ngi ñëw di faju si man amuñu benn problème sant rek la ñuy def xëy na bu ñu amee lenn rek lu ñu naqari mooy poste bi ñu nekk poste bi ñu nekk moom am nañ fa ay problème ndax taw bi moom nawet bi taw bi moom daraan suñu néegi daraan seen moom comme pas possible ak tamit euh, insectes yi fa nekk lu mel ni ditaar yi ñuy wax tout le temps si bale lañ dëkk làmp duñ ko taal guddi loolu daal mooy problème bi ñu am te dañuy sant yàlla rek. mais loolu problème boobu jeex na ndax teg nañ fi xeer euh, poste de santé boo xam ni jox nañu délai cinq a six mois. Euh, kon tey ban appel ngay lancé jëmee ko ci population bi euh, ak ñi nga xam ne ñoom nga àndal ci liggéey waaw di leen dellu rek gërëm tey wax population bi ne poste bi seen post la suñ fi fajoo seen post la buñ fi fajowul seen post la post bi ñëpp lañ ko ubbil ku am ak ku ñàkk dañuy ñëw ñu toog waxtaan ndax du ñu seetaan benn malaat muy génne dem fee ndax problème mu xaalis ku ñëw boo amee dinañ la faj boo amul dinañ la faj ba keroog ngay jekk ñëw ndaxte moom santé kenn mënu ko faj ñun daal poste bi dañuy delloo dañuy gërëm daal moom partenaires yi noonu fi ko def moom heure bi ñu ko def lañ ko soxla parce que heure bii rek moom moom moom moom macha allah amuñu leneen lu ñuy wax lu dul di leen gërëm rek ndax poste bi fi mu toll ni bee sonnoon nañ ci macha allah moom dañoo mënul wax rek ndax nguur moo ñu fi teg te fuñ la teg da ngay toog bu gis leneen gaa métti woon na waaye nag ñu ngi ñaan yàlla mu continuer ndaxte lu ñu métti woon yëpp ñu ngi koy commencé fàtte ba ñu defee pose première pierre. sama dernier mooy mooy remercier waa dëkk bi waa dëkk bi moom aw ma seen fay. tamit sama personnel macha allah duma wax fàtte sama personnel ñu ngi may guddi ñu ngi may bëccël su ma demee formation sama xel dina dal ñoom ñëpp nag ndax du ma lim bu ma limee damay juum amul ku ma ci dul sant loo xam ne danga ma danga ma ci tàng xam ne fu ma leen woo ñu ñëw muy guddi muy bëccëg aw ma daal benn njaaxare ci dëkk bi moom li may ñaan yàlla rek mooy yàlla dimbali ñu ñu àggale suñu poste bi si jàmm salaam waa dëkk bi gis ci seen bopp si jàmm ak salaam di ñaanal maire yi di ñaanal ñëpp di bañ a fàtte nag sama docteur sama docteur moom fu ma toll dama koy ñaanal ndaxte moom it jàppale na ma lu ma wax ak partenaire yi dinaa ko woo téléphone euh, rendre ko compte te bu ma ko rendre compte ci ci yoon bi la ñuy teg ba bi ñu mujjee teg suñu plan bi pour defar réflexion bi ñu ko woowee mu xool plan bi am na ay changement yu mu ci def ñu ànd moom di ko remercier moom tamit ci disponibilité bi di ñaanal ñëpp jàmm. merci euh, sëriñ Mori en tant que CDS résumé bu ndaw rek ak sentiment bi. waaw xanaa delloo sant rek comme ni ko docteur waxee na fi defe naa li partenaire bi seen seen coordinateur wax monsieur le maire wax ko imam wax ko kenn mënu tiye teg leneen. xanaa sant comme ni ko na fi waxee yàlla daf noonu nattoo ñu nekk ci dëkk bi di doomu dëkk bi ah, responsabilité bari ñu teg ko ci suñu bopp. TTS bi te yàlla dogal na man la ñu jiital ma nekk ci bopp bi ngir yàlla ak yaakaar ak defar ah, ni mu ko waxee nag post bee nga xam ni moom la ñu yor mooy post de santé bi ñu ngi ko construire na en 1977 boobaag léegi ça fait presque 40 yu manqué tuuti ah, am na ay contraintes yu bari yu ci am comme ni ko na fi waxe mais nag nit ki bu fekkee am na loo xam ni mënoo ko ah da ngay sàkk ku la ko mënal donte état defan na ay effort ba amoon ay jamono. site bii lañ leen waroon ñu naan dañu fi def niveau poste mais yàlla ci kàddu maire yàlla dogalu ko yàlla dogal nuy cherché ba yàlla dogal partenaires yi ñëw fi ñuy discuter ak ñoom depuis deux mille dix neuf ak léegi wala deux mille vingt ba yàlla dogal muy door a antu tey kon li ñu wax rek ñaan yàlla mu àgg ak jàmm te muurloo ko ndax dëkk bi parce que dëkk la boo xam ni dëkk bu mag la ah fa tabarakallahu ku leen defal lii defal ngeen lu ñu soxlawoo ak les village polarisés yi nga xam ne ñoo ko wër di war di accès ci jaayaan kon ku leen defal poste bi defal ngeen lu ñu yelloo lu ñu yàgg a bëgg yàlla mi nga xam ne nag mooy baaxal lépp ah di sottal lépp yàlla na ko yàlla sottal nu fekke ko ba jariñoo ko suñu njaboot ak population bi loolu daal moo doon kàddu yi njàmme di leen sant bu baax nag ndax xeebu leen seen benn cérémonie wax dëgg yàlla te lii itam am na solo lool ndax Thiénaba ga nga jóge ak Jaayaan da dul benn dëkk da dul ñaari dëkk benn la kon ku defal Jaayaan sag mel na ni Thiénaba nga ko defal bi ak kilifa yëpp suñu nuyoo ak suñu cant ci turu Baye Serigne Ndiaye salaamaaleykum wa rahmatullah salaam wa rahmatullahi wa barakaatu mbokku téléspectateurs yi kon loolu moo doon euh, doxantu bi nga xam ne defoon nañ ko fii euh, ci jaayaan euh, ci pose première pierre bokk kook lancement boo xam ne lancement travaux poste de santé bi nga xam ni xayma nañ ko ci valeur u 75 millions muy juróom-ñaar fukki million ak juróom dégg nañ apport bi nga xam ne tamit mairie bu Thiénaba def na ko ci ngir jàppale rek ngir wér-gi-yaram gën a mën a yaatu di jaajëfal mbokk yi ñu àndal dégg ngeen intervention yi nga xam ne